asalaamaaleykum ami chers fidèles internautes ñu leen di nuyu di leen ziar di leen dalal jàmm fii ci biir Dakar a TV comme ni ñu koy defee à chaque fois di leen toppal actualité yi en temps réel di leen ko baaxee ñu dooree ak yenn exclusivité de taille bi nga xamante ni rek moom la jot léegi comme information bu kee ci premier ministre du Sénégal bi di Ousmane Sonko muy ay sources yu leer yu wóor ñu ngi xamal ni rek moom PM Ousmane Sonko daal dinay déménager fi nga xam ni rek moom mooy këram nga cité kër góor gi bi mu dëkkoon ak njabootam plus de dix ans fi mu déménagé nag du fenn bu ñu sukkandikoo ci information bi nga xamante rek euh, jot nañ ko euh, moom daal déménagé na euh, Petit Palais Petit Palais nag boo leen ko déggee yaakaar naa du leen jaaxal ndax moom mooy dëkkuwaayu fonction premier ministre du Sénégal jamono ji na ñu ngi xamante ne dafa amoon quelques réglages yoo xamante ne dañ ko doon defaraat foofu looloo tax nag mu xaw a jël temps mais Palais Petit Palais nag nekkee fi nga xamante ni rek moom mooy côté hôpital Aristide Le Dantec soriwul lool ak fi nga xamante rek moom mooy la République du euh, Sénégal dem na fa moom ak ñaari soxnaam ak ay euh, doomam loolu lañ jot comme information quant à euh, le président Bassirou Diomaye Faye nag ñu ngi xamal ni moom déménagé wugul officiellement fi nga xam ne rek moom ca palais ba moom nag mu ngi desandi fi nga xamante rek moom mooy ca hôtel bi nga xam ne foofu la ñu logé boobaak léegi muy information yu sûr yu leer dinañ leen taaxirloo yi nga xamante rek rek moom mooy information yi war a kee ci loolu tamit daal leen koy baaxee fi nga xamante ne rek moom mooy Dakar Média TV la chaîne leader mais aussi c'est la informe juste et